dara lii sa tudd mu am lu mu ne la roi des arènes bi de ñàkk nga waaye jàppal ni diwa ko doon def nga doonaat tey nga amaat bés nii man dama ñëwee ci marché bi euh, présence su seen bi njëkk sentir ni mu manqué dëgg la xam nga àdduna moom boo nekkee murit nekk taalibe suma sëriñ tur bi ma ko njëkk bëgg a tuddee daf ma ne bàyyi ma tuddee ko suñu yaakaar tey ak ëllëg ñu tuddee ko Xaadimu Rasuul ci turam yi te tur bi yéeneem la sama yéene la woon waaye dama leeroon na bu fi woon tamit sëriñ Saliou la ko tuddee wala sëriñ Fall kon maam yëg-yëg rek lépp li nga xamante ne moom la daan doxalee rek maam tànk yooyu di ko doxee te yàlla rek tax nee nañ nag nit walla wàllu wala kilifa wala rawatina sëtu Serigne Touba ci kanamam ci ginnaawam rawatina ci ginnaawam ci ginnaawam laa gën a bëgg waaye li tax ma bëgg man xam naa ko maa ngi koy sant di ñaan yàlla yàlla yàlla yokki leeram te taaf ko ci barkeem loolu rek am na waaw mënut a ñàkk ndax sama xarit dama koo bëgg non solo sëñ Tuubaa la. ah yaa rafet non garaaw non garaaw baax baax na baax. kenn du sewul. da ngay ñëw